yéen a kaay record lañu koy doore moom mi nga xam ne daa nekk ci euh, xëtam mu njëkk indi ci ka nga xam ne mooy Kalidou Koulibaly kàddu yam doon yëkki kàddu ya nga xam ni Euh, moo ca gën a ràññeeku mooy kàddu yi nga xam ni yëkki na ko ci équipe nationale bi nga xam ne daanaka jël na ca la nga xam ne euh, mooy euh, coupe d'Afrique ak Karim Benzema nga xam ne mi ngi lëngoo ak ki nga xam ne mooy Ancelotti stade moom daa ñëw ci Sadio Mané mi nga xam ni dafa coiffé ki nga xam ni mooy Sadio Mané wala bokk wala dafa coiffé ki nga xam ne mooy Karim Benzema nga xam ne ñoom ñaar daanaka fi mu toll ni coow lu nee na kur ndax exico ngay am foofu ak calcul calcul mi yebbi ay kaddu ak messi mi nga xam ne daa yenn bopp ba ah, mel ni ku jaaxle doomu argentin bi nga xam ne ah, fi mu toll ni mi ngi ci guddi gu bët sëtagul ak sunu làmb mi nga xam ne moom daa ñëw ci xëta mu njëkk ki nga xam ne mooy ah, Gris Bordeaux nga xam ne doomu Fass bi la yëkki ay kàddu teg ko ci taabal ji mi nga xam ne moom ci boppam ma ngay jaabanjange jàpp ni la nga xam ne mooy combat bi war a am la set digganteem ak Balla Gaye moo cay am ndam waaye loolu lépp lu ñëwagul la